welcome welcome bienvenue asalaamaaleykum wa rahmatullah bonsoir bu fekkee si bu gi la bonjour bu fekkee le matin la damay am mbégte saa su ne andil leen émission bi ngeen tàmbaloo doo ko muy rubrique découverte xam da leen andil sénégalais yi xam ne dañuy seen bopp fii ci réew mi sax wala bitim réew surtout xam nga donc euh, génn seen talent ba tax na tey dañuy ñëw wax si Mody Diaw gardien bu Clermont Foot waaye nañ si daan générique bi te ñëwaat bu mu leen nuyuwaatee ba pare ma am mbégte ak benn fierté franchement di def rubrique découverte ndax gis naa ni ngeen ko soppee ni ngeen ko tàmmoo ni ngeen ko bëggee ni ngeen koy partagé may leen di gën a ñaax ñi nga xamante ne dañoo abonné di fàtte souvent di bañ cliquer ci cloche bi def leen ko moo permettre notification bu ñëwee que ça soit seen ordinateur tablette wala sax portable di ngeen teel a gis vidéo bi mën a ñëw dugg joxe seen xalaat like aimer vidéo bi mooy like ba tey xam donc bref bu ñu jógee dañuy wax ni revue de découverte Mory Diop moo ko tax a jóg benn gardien de but bu xamante ne moo ngi nekk Kalidou Foot pour ñi nga xamul Mory Diop moo ngi judd le 22 juin 1993 moo ngi am 29 ans moo ngi juddoo Poissy nekk benn gardien bu xamante ne. football def que mës a bëgg maanaam passion la carrière moo door ci benn club fa di jouer jusqu'à am 15 ans mu amee 15 ans ci formation bu Paris Saint-Germain centre formation nag bu mag a mag ndax naar Qatar yi dañ si def bu jël rek c'est parce que am nga talent jamono bi talent rek la loolu moo tax Paris Saint-Germain jël ko. C'est nag ci diggante bi jaar nañ si football club Versailles mais yàggu fa noonu waaye saison 2009 2010 le def passage boobu sax après nag si la ñëw nag enfin Paris Saint-Germain si centre formation bi di yéeg nànk-nànk di def ay prestations li ñu mel moo tax que si équipe A bi équipe pro bi saison 2013 2014 mu nekk quatrième gardien bi après Sirigu international italien du 16 ancien gardien de lance wala sax mag mena jamono bi nak mo nek milance moom quatrième gardien bi mom fa jouer sax d'ailleurs ben match mais amical le 8 juillet mais problème am ak Paris Saint-Germain ngi am la nuit du 19 ak 20 suis dit 19 ak 20 mai 2018 C'est ay étude qui xamante ne defoon na ko mu nekk problématique waa dirigeant yu Paris Saint-Germain ko prolongé un mois après prolongé wu ñu ko ñu bàyyi ko fële nag carrière u euh, Mory Diaw basculé carrément après dafa dem deuxième division Portugal joué na fa tuuti 17 matchs waaye équipe boobu mu nekkoon dañoo mujj wàcc troisième division loolu yaaxal ko bëri maanaam troisième division lañ dem mu jógee fa dem championnat Bulgarie mu toog fa 6 mois géewul après muy def essai sur essai essai sur essai ba mu def sax benn essai bu dem ba jàpp maanaam Leeds moo woon fa dem lépp leer na après nag yeneen actionnaire ñëw xam nga voilà xam mu jiw fa dem mu tëg deux ans yu xamante géewul dara si lay dem quatrième division suisse fa la ko yàlla jàppale mu def ay prestations si benn équipe bi ñuy wax United Zurich quatrième division suisse fa la defee ay prestations fa lañ ko gisee fa la ko Lausanne Sport gis maanaam deuxième division Suisse ñu première partie de saison est mais bokk na si tax am fa temps de jeu équipe bi enfin jël trophée deuxième division Suisse yëg première division Super League Suisse mu def fa ay prestation yu leer nañ équipe.

andiko mu sen gardien numéro 1 na apuron jiko bolen fatale ko rek ñon de def ci Je vidéo euh, franco sénégalais la comme ni xam c'est un judo, fa lañ le maintenant Modou Diaw ñu jël place am Diaw bu ñu jël place am saison man nga wax Saint-Germain mais na supporter am ci satisfaction que ça soit entraîneur que ça soit même wax un très bon gardien de but face à

kii di Mory war nañ ko mën a convoquer en tout cas bu fekkee taxawaay moo ngi fi bu fekkee talent moo ngi fi bu fekkee expérience moo ngi fi si digg dooleem la nekk kii mooy Mory Diaw pour ñuy xamante ne xamuñu ko woon barax na mbokk yi ci commentaire yi man ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis si Mory Diaw dem suñu yeneen plateforme Facebook Twitter Instagram TikTok boo leen tapé Senfootball TV incha allah di ngeen gis suñu logo bi maa ngi leen di jaajëfal li ngeen wax ba beneen sur Senfootball TV